locale te bu boobaa euh, détournement de suffrage yi am sax ci yenn mairie yi comme Barthélémy Dias bi nga xam ne dañ ko voteloon ndax li mu taxaw taxawaayu opposant à Macky comme Bamba bi nga xam ni dañ ko voteloon mu taxaw taxawaayu opposant à Macky Sall ak comme maire yëpp ñu voteloon hmm. ndax seen opposition à Macky Sall te ñu jël ak askan bi dem féete ji ak Macky ñooñu askan bi dañuy régler seen problème ak ñoom kon li may wax ni askanu Sénégal moo gën a moom sax que état major politique yi il faut nit ñi conscient que le peuple a pris le pouvoir man lecture boobu laa def le peuple a pris le pouvoir depuis les élections locales et législatives yi passées parce que jox nañu opposition bi majorité boo xam ni jëfandikoo ko sax niñ ko war a jëfandikoo parce que lañu dem ba assemblée nationale ku nekk jël li la askan bi jox daal di beru ber sa yoon taxawu dem beru fële wallu dem beru fële euh, euh, yeew yi des ay loolu taxul woon jóg askan bi dans une dynamique unitaire li taxoon a jóg askan bi moo doon jox opposition bi majorité à l'Assemblée nationale volonté boobu nag incha allah danañ ko poursuivre ba ci élection législative yi di ñëw lii pour wax la que nguur du président de la république rek de du exécutif kese de parce que président de la république mënul def dara sans le vote des lois mënul def dara sans gouvernance locale président de la république boo xam ne tu n'as pas les grandes villes tu n'as pas l'assemblée nationale tu es de cohabiter te loolu mooy le pouvoir au peuple kon forcément askan bi mu mujjee pouvoir bi kon acteur politique yi. Mm. Macky Sall ak ñi mu àndal ñu lucide bañ a focus rek ci présidentiel présidentiel di war na bokk di waru bokk loolu vraiment. Mm-hmm. ñëppi politique la boo xam ne euh, da leen dugal ci pax boo xam ne duñ ci mën a génn kon tey jii conseil constitutionnel la ñuy interpellé. pour mu dugg dans l'histoire conseil constitutionnel mi nga xam ne ñëpp dañuy yot avec des raisons que lu neex Macky Sall neex na ko parce que gis nañ fi en deux mille dix-neuf une fausse interprétation du rabat d'arrêt rabat d'arrêt la boo xam ne bu ñu la daanee cour suprême dañ koy dugal te dafay aj Euh, décision Cour suprême ba mu jël le rabat d'arrêt est suspensif moo fi sañoon a wax en 2019 que le rabat d'arrêt n'était pas suspensif loolu moo xañ illégalement euh, Khalifa Sall Khalifa oui bokkoon ci élection wu 2019 mm-hmm. euh, Badio bi nga xam ne moo nekk à la tête Euh, de. du conseil constitutionnel ngi fàttaliku ba mu nekkee euh, cour suprême euh, waroon def déclaration de patrimoine mm-hmm. parce que am na benn montant boo xam ne boo ko géré mm-hmm. yoon daf la obligé nga def déclaration de patrimoine mm-hmm. te moom mu ngi doon gérer un budget de milliard bi ko ci Nafi Ngom Keïta. soññ fàttale soññ ko soññaat ko ci. mais dafa dem boole ko président de la république président de la république moo wax Nafi Ngom Keïta mais kii may ko jàmm. baal jàmbur. bàyyi jàmbur loolu il faut ñu fàttali ko donc c'est le protégé de Macky Sall parce que yoon gi mu waroon a jaar Macky Sall moo ko interveniral pour ñu bàyyi ay weer lañ ci teg sax ñu jëlee fa Nafi Ngom Keïta te pourtant liggéeyam la doon def kon kooku tey ji bu nekkee à la tête du conseil constitutionnel euh, war na am souci euh, dalal xelu nit ñi ci ni du am posture de redevabilité. kon Clédor sa xel dalul kon sa xel dalul ci conseil constitutionnel pourtant dernièrement euh, dafa mel ni yéen kóolute ngeen doon wane. pas hmm? ci conseil constitutionnel. d' ci baajo Camara man man Badio Camara laa. mooy sa problème damay tudd ay nit. d' accord. ba noppi am fu ma ko teg parce que épisode bi ma nekkal nii. pour ñi amuloon information bi euh, euh, ñu ñu am ko pour ñu amoon information bi aussi ñu fàttaliku ko pour wane rek rapportu président de la république ak Badio Camara ak sañ-sañ bi mu am ci conseil constitutionnel kon tey jii euh, njort bu ñaaw boobu ñu am ci ma am bokk man ci Badio Camara moom la ñu amoon ci dundiir bu sena parce que ab retraité bu ñu yokkal la woon boo xam ni daf fi nekkoon rek sena ba opposition bi yëpp doon ko jooy naan ne kii. Euh, maanaam jeex na changé ko mais bi juge Sabati jëlee décision moom dundiir bett na ñëpp moom Sénat parce que dañu décider appliquer cette décision de justice contre les intérêts de Macky Sall mi nga xam ne ñëpp xam nañu buggul woon Ousmane ko bokk kon mbetteel bu neex boobu ñu am ci dundiir. maa ngi ñaan ñu am ko au delà de ci euh, Badio Camara ci conseil constitutionnel yëpp mais soo indee digganteem ak Macky Sall nga indi sañ-sañ bi conseil constitutionnel amoon ni rabat d'arrêt c'est pas suspensif te loolu ñëpp xam nañu du dëgg ñu nekk première année droit sax xam nañu du dëgg mu ngi mel ni interprétation contumace bi nga xam ni procureur de la sañ na wax ni karamu Sénégalais yépp ni Ousmane Sonko ci leneen lañ ko jàppee kon loolu jotewul dara contumace te 307 code procédure pénale waxul lool Ismaïla Madior Fall di professeur en droit dem di communiquer ci loolu ni contumace bi c'est pas anéanti il a une condamnation définitive donc comportement yooyu malhonnêteté intellectuelle yooyu je crois que moom la ñu war a bannir Sénégal léegi nag conseil constitutionnel juróom-ñaar lañ Macky Sall dafay dem ñu ëpp ci ñoom yokkal nañ leen ba mu sëkk ci wàllu carrière ñuy dépassé ci ñu nekk nii kon ñoom ñoo war a jël seen responsabilité devant l'histoire réconcilier les Sénégalais avec eux-mêmes parce que élection expression volonté populaire expression bëgg-bëgg askan ñoom ñoo koy encadré ñoo koy teg ci yoon Euh, ngal nañu doyloo yoon jëfandikoo yoon kese képp koo xam ne mënoo nekk candidat ci wàllu yoon kenn du ànd ci mu nekk candidat ci lu dul yoon waaye képp ku mën a nekk candidat ci wàllu yoon tamit kenn du nangu ñu xañ ko nekk candidat ci lu dul yoon. kenn du nangu ça veut dire suñ ko teree ku mel ni Ousmane Sonko am na lu ngeen na ñe ñe ñan lu ñu naan. yaa yéen ñi yéen ñi koy jàppal tànk yéen ñi jàpp ne yoon dafa war a. dox ci réew mi non loolu. sóoraale nañ ko xam nga lu ñu nar mooy. Hmm. ñoom ba àgg ñoom ci élection Ousmane Sonko wala ndawam présenté wu taataan baatu askan d' accord kon Ousmane Sonko su jàllulee da ngeen di xaar bu Basirou en fait ni yëf demee tey sax Basirou normal moo la ñu njëkk xool xam nga xam nga carte gi. Hmm. Euh, la DER. est entre les mains de Ousmane Sonko. la doon dafa dëpp yëf yi oui <laughs> bien sûr on a compris. waaw voilà la la DER est entre les mains de Ousmane Sonko. bien sûr. moo yore DER moo yore